tey jii comme ni ko constitution waxee moom mooy at mu jot ci première quinzaine mois d' octobre constitution dafa wax ne assemblée nationale dafa war a ibi session unique bi nga xamante ne ni moom mooy session unique ordinaire bu assemblée nationale 2020 2021 loolu la ñu def tey mu am nag ay coppite yoo xamante ni am na ci li nga xam ne moom mooy bureau bi ñu gis ne euh, vice président yi am na yoo xam ne soppeeku na ci man nag euh, comme ni ngeen ko waxee maa ngi gërëm bu baax li nga xamante ni moom mooy képp koo xam député nga di aussi le président de la république Macky Sall mais en tant que président de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que aussi il faut que ñu xam ne ñun scrutin de liste la ñuy bureau assemblée nationale et moom mooy njiitu coalition bi donc wax dëgg yàlla confiance boobu mu am ci man ak képp koo xam nga ci coalition Benno Bokk Yaakaar ma ngi leen ci sant leen ci gërëm mais aussi di sant li nga xamné ñoy sama ay collègues yi nga xamné ñoo nekk ci assemblée nationale té ñom ñoo voté tay ba yalla def mu nek position bi li nga xamné mom lañu la def rek moy li ñu mus def moy continuer di liggéeyal askan bi continuer di déglu population yi continuer di jéem nek ay exemple ak lépp lo xamanteni askan wi mi ngi ci ñu jëm ci taxaw